di conseil constitutionnel génne na liste ñaar fukk ci candidat yi nga xam ne ñoo nar bokk ci présidentielle bi ndax am na mbetteel ci yow lu ci mel ni surtout Karim wadd ndax euh, daanaka boobu ba léegi moom la ñuy waxtaanee. waaw xam nga tey moom vraiment il faut saluer quand même calembour bi nga xam ni sunu mbokku journalistes yi euh, de la presse écrite tey usé nañu calembour boo seetee rek euh, ci vin bi lañ ko waaw ci vin bi lañ ko jëmale euh, maanaam euh, mën nañu wax ni le vingt est tiré et il faut le boire mais Karim Wade nag quand même amul chance boobu ndax moom il boit le calice jusqu'à la mm. parce que quand même xëy na il ne devra s'en prendre qu'à lui-même mm-hmm. parce que am na ay erreurs yoo xam ni daf na ko ci dépôt nationalité bi je pense il considère fi mu ne nii waa PDS ñu ci bëri jàpp nañ ni euh, c'est Thierno Alassane Sall son bourreau parce que moom moo posé euh, ce problème la de la nationalité de Karim sur la table bon euh, fi mu ne nii nag vingt la ñu tiire maintenant vingt candidats ñoo war a dem bokk ci élection yi waa Sonko yi ñu ngi commencé naan Diomaye mooy Sonko pour dëggal waa Pastef yi ex Pastef mhm. ñoom ñu ngi commencé di dëggal naan Jomaay mooy euh, disons Sonko euh, Habib Sy euh, ak Cheikh Tidiane Dièye ñu fàttali ni ñoom aussi xaw nañu jege également Yewwi Askan Wi par rapport ak un candidature bi ñu doon déposé mais waa Pastef ñu ci bëri ci réseau sociaux yi ñu ngi leen di dégg ñu naan Jomaay mooy Sonko pour mën a un peu légaliser wala ñu méngale. Euh, ñàkk bokk Sonko bi ñu jàpp ni Diomaye mooy seen candidat mais euh, leneen lu ñu ci mën a wax euh, naata mooy pour man tiré nañu vingt bi mais man dafa am loo xam ni dama ko seetlu te dañ ko yamalewul en fait parce que Euh, CNRA génn na décision pour wax ni quand même campagne bi am na moment bi muy commencé am na fu mu am na fu mu yem mais boo seetee également euh, pour man le candidat Amadou Ba dafa jël longueur d'avance ci candidat yu bëri parce que sous le couvert moom mooy premier ministre mm. da ngay gis inauguration yi muy def activité gouvernementale sous le couvert des activités gouvernementales muy inaugurer muy euh, disons lancer ay initiative par semaine dernière mi ngi woon euh, dans le sud du pays da ngay gis ni dafa jël avant sur les autres te waa RTS yi également dañ koy wane à gogo euh, mu mel ni moom liñ ko doon critiquer naan dafa mu dafa dafa xaw a kenn sentir ko fi mu ne nii dafa commencé euh, chaque jour amadu Ba amadu Ba ci télé bi te pour man loolu également pour man euh, du joxe même chance égale les candidats parce que quand il faut ñu fàttali que ni RTS la loi 92 6 janvier 92 moom moo ko créé euh, ba mu ko créé sur les fonds publics lañ koy euh, financer te fonds publics yooyu sunu ñàkk la ñàkk jaaykatu euh, gerte caaf yi ñàkku ñëpp la pour man nag danoo war a yamale candidat yëpp parce que sous le couvert des activités gouvernementales ñuy. Amadou mu muy génn à chaque fois alors que doo gis benn parti politique génn pour man loolu il faut le dénoncer euh, ni mu mën a euh, ni mu gën a énergique hmm. maintenant nag le vin est tiré yi ñoom ñooy décidé xam naa nag il faut quand même des problèmes d'organisation parce que bu fekkee hmm. vingt euh, liste la ñu nar teg ci table bi nit ñi nar a tànn benn ba vingt. boo moytul dafa nar a mm-hmm. guddee. Mm-hmm. te loolu pour man xëy na après dina indi coow loo xam ni ñu naan bureau de vote yi tëjagul ba léegi yooyu yëpp jar na sóor la. El daaw Daouda avant ñu évoquer base juridique xaj na rejet Karim Wade lool ci ñaareelu pàcc bi ak sa mm. jàngat bi. Mm. ñu taxaw tuuti ci euh, candidature yi ñu retenir yow tamit ndax am nga ci euh, mbetteel ndax mm. on disait il y a quelques jours fii nii même bu conseil bi génnee liste définitive bi. xaj na li ciy soppeeku du bari. waaw berteel amu aw ma ko ci lu bari euh, dans la mesure où conseil constitutionnel addu woon na déjà ba génn woon benn liste de vingt une personnes. Hmm. peut-être mbetteel bi nga xamante am naa ko ci mooy le fait que ñu génne ci Karim Wade en en en dernier lieu parce que conseil constitutionnel la plupart ci taarix. bu mësaan def ba ba génne li nga xamante moom mooy liste provisoire. Mm-hmm. Euh, moom lay la plupart moom lay confirmer mm-hmm. même bu fay recours yu bëri bëri bëri boo xoolee jurisprudence euh, conseil constitutionnel la plupart recours yi da koy da koy da koy nasaxal. et confirmer li nga xamante moom moo nekkoon décision bi donc mbetteel daal su fekkee ne am naa ko ci pour pour pour pour me répéter. Mm-hmm. mooy le fait que ñu écarter Karim Wade mais je pense que loolu noonu ci deuxième partie bi comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. dinañ ko mun évo évoquer sur les arguments yi nga xamante moom la conseil constitutionnel euh, teg sur la table pour jël décision bi mu jël. beneen bi nag bu fekkee ne da nga jël euh, euh, tey jii analyse globale sur le plan purement politique ñu wax ni tey ji on a une élection très ouverte. élection ouverte moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy lan tey hmm. tey aussi bien opposition bi que parti au pouvoir la mouvance présidentielle dafa éclaté wu actuellement ne soo jëlee sur les sur les candidats yi nga xamante ne da koy gis au moins mën nga ci citer ñaar wala ñett ñu nga xamante ne ña nga ci opposition bi mën nga mën nga ci ñaar wala ñett yu nga xamante ne ñu ngi nekkoon ci mouvance présidentielle ñu nga xamante ne ñu ngi nekkoon biir APR daal di génn ber seen daara et tey ñu valider leen ñu war a bokk ci ay candidats war a jàmmaarloog ñi nga xam ki nga xamante moom mooy Amadou Ba le candidat de la de la mouvance présidentielle donc lim lay waxal mooy lan ñoom ñëpp dinañ puiser ci même électorat mm. opposition bi que mu nekk Déthié Fall que mu nekk Cheikh Tidiane Dièye que mu nekk Habib Sy que mu nekk Bassirou Diomaye Faye ñoo bokk même grenier bi nga xamante fa la ñuy dem tibbee ji mm. nga jël également ci beneen pàcc bi euh, que mu nekk Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye ah, Diao Boun Abdallah ñoom ñëpp également ci même grenier bi la ñuy dem puiser ji ce qui fait que les votes seront éclatés mhm. ci sama xel mu gàtt soo moytu dinañ dem deuxième tour mhm. et à part de ce moment là bu boobaa nag bay dina mhm. <laughs> dina mais mon intime conviction est pour kenn jàll premier tour sa va être très très très très très très difficile beneen beneen bi mortal wax également c'est sur l'organisation tey ji avec vingt candidats su fekkee ne dañuy obligé ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk électeurs yi ñu jël vingt bulletins avant que ñuy dem ci mbañ gàcce bi ça va poser un problème mais nag je pense que am na benn moment bu nga xam ne rek la woon nañ lu mel noonu au lieu que ñu obligé ñëpp ñu jël vingt bu ñu leen voilà ñu poussé leen ñu jël ñaar wa ñett ba ñetti bulletin doog a dem ci ngañ nga xamante moom mooy seen tànneef. loolu yëpp pour préserver secret vote bi oui euh, Chérif. Euh. conseil comme ni ko Mine waxee en 2017 bi ñu amee 47 listes yi le conseil constitutionnel président bi mu ko saisir rek la woon problème hmm. boobu à travers une décision. Hmm. bu dee listes yi dépassé nañ 5 moom bu la neex nga yem ci juróomi bulletin yi nga mën koo déposer comme ni ñu ko waxee aussi élection bu ubbeeku la parce que ñaar hmm. a jàpp ni dina nekk ñi doon wax naan élection inclusive lii moom élection inclusive mënu a mënu mënu ko weesu même s'il y a des parce que maa ngi doon calculer comme ni ko euh, mii nag euh, Mor waxee Yewwi Askan Wi rek boo jëlee ñoom déjà mm-hmm. six candidats génnee na ci coalition Yewwi Askan Wi mm-hmm. boo ci boolee Khalifa Sall mi nga xam ne exclure nañ ko sax sept lay doon mm-hmm. nga jël Benno Bokk Yaakaar c'est vrai que seen candidat oui seen candidat c'est Amadou Ba mais ña faqee koo ca laa nga ñoom it euh, berseenoo yoon ca daanaka bokk la nekkoon donc ça ça fait six. Mhm. donc mu ubbeeku euh, am na cas intéressant yoo xam ne moom c'est mhm. euh, am ay jigéen yu bokk ci ay élection présidentielle ñu nekkoon ñaar muy Amsatou Sow Sidibé ak Juma Dieng mhm. amaat nañ quand même. beneen yoo xamante ni bokk nañ ci Pape Djibril Fall il faut qu'on salue quand taxawaayam parce que c'est le benjamin parti pour être le plus jeune candidat de l'histoire en tout cas politique du Sénégal ci élection présidentielle donc euh, gone gi tamit euh, gëm boppam gim boppam ak taxawaayam on n'en parle pas mais je pense que c'est très important mm-hmm. ñu taxaw ci au-delà des candidats yi nga xamante ay candidatures indépendantes yu ñu gis Idrissa Seck moo ci am expérience ci élection présidentielle ndax moom daanaka bii moo war a nekk quatrième présidentielle am ak euh, Mamadou Lamine Diallo nga xamante ne en 2012 moom it participé woon ci élection présidentielle loolu aussi quand lu lu mën a nemmeeku la euh, aussi des surprises muy Diomaye Faye xam naa miin mi nga xam ne xam-xam màcc na ci wàllu kii naka lañ mën def parce que yi nga sàkku ñu bàyyi ko mu mën a bokk ci élection yi parce que ñu pour la première fois ñu am candidat élection présidentielle bu nekk kaso mm. amoon nañ ko ci ay législatives mooy Barthélémy Dias ak xawe ah ak mais bi euh, bon Niger lañ ko mosoon gis ak Ama Amadou il était qualifié même au deuxième tour laata gars yi di négocier xool naka lañ koy defee ba mu mujj a dem exilé wu fële ca France mais Sénégal gisagoon cas bi surtout ñi ngi wax affaire temps d'antenne ak CNRA naka lañ mën a def ba moom ñu mën a dégg mm. quand mu mën a euh, doxal li nga xamante ne moom mooy euh, programme moom je pense que loolu aussi lu

Karim Wade lañu war a waxal parce que wax naa fii da semaine passée ne amul respect ci ñi nga xamante moom la ñu ànd ak parce que Karim bu ngeen fàttalikoo 2015 ko njëkk a tabb candidat boobu mi ngi woon sax ci kaso bi affaire cré yi verdi génn gudd c' une pression bu état bi mënoon donc je pense que temps boobu yëpp lu ma fukki at nga toog li jiwoo sa mbiram euh, li nga xamante mooy ay nationalité ba dernière minute Thierno Alassane Sall dem na bi nga xamante ni quand même conseil constitutionnel jël na ko euh, jëm ci voix yu a taxaw moo tax le PDS ñi ngi wax mais mën na nekk sax arbitre ci li nga xamante moom mooy élection yi ci fun mën a jëm ak kun mën a jàppale moo tax gars yi ngi leen commencé quand parce que ci euh, gën nga xamante euh, le porte parole de l'ex def na ko El Malick il tire sur ki nga xamante ni mooy Thierno Alassane Sall pour xëy na essayer de alors ñoom ñoo bokkoon seen intercoalition voilà ñoo bokkoon seen intercoalition bi mais en tout le PDC allait dialoguer waa ex-Pastef doon doon en tout cas ñi demoon ne c'est des traîtres mais on est en politique xëy na mais Thierno Alassane Sall man mënuñ ko reprocher li nga xamante def na ko parce que comme yoon may na ko ko je pense que foofu la c'est pas parce que c'est mm. un opposant que warta tirer sur un opposant dans ce pays nag dañu jàpp ni parce que El Malick dit que c'est pas mënuñoo comprendre par exemple un opposant non fii Sénégal a santaane jëm ci wàllu donc ñu on espère ni fi la war a jëm Idrissa mm. Seck aussi son silence on espère li nga xamante ni mooy wàllu sinon am na ah. ñoom euh, ak taxawaay bi nga xamante ñoom it war nañu ko taxaw jëm ci mm. élection yi mm. yàgg na en tout cas et puis parrainage bi finalement on se demande filtre la woon mais fii finalement nekkul pour j'ai lu Cheikh Diallo parle de passoire c'est vrai parce que jàppoon na ni ak parrainage beeg li nga xamante ni mooy filtre yi on aurait moins de candidats mais vingt candidats quand même temps d'antenne yi boo jëlee boo joxee ku nekk cinq minutes c'est cent minutes. donc cent minutes. nit et puis mooy toog di seetaan loolu lépp. xanaa xaaj ko ci ñaar ku nekk ñu yow fukki candidat jàll fukki at jàll loolu aussi beneen problème boo xamante ni peut-être temps d'antenne bi dina euh, am organisation peut-être boo xamante ni donc dinañ ko def Euh, ca RTS man li nga xam ne donc jaaxal na ma un tout petit peu temps d'antenne bi nga xam ne dinañ ko jox euh, fukk ak juróom-ñeent ci candidat yi pour pourquoi pas ki nga xam ne moom moo di euh, Bassirou Diomaye fay bu fekkee yoon dogal na ne donc mën na ko bàyyi fësal li nga xam ne moom la ay naataangoom di wax mu ñeel wàllu liberté ñu daal di koy bàyyi moom itam mu baat li nga xam ne moom moo di campagne mën na def comme ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay moroomam ndax itam élection la ñu wax nañu dimbali ci lu soxal wàllu organisation bi ba mm. kenn benn benn candidat donc du du du génn di contester quoi que ce soit euh, deuxième tour est inévitable depuis ñu ngi koy wax donc dinañ xaar ba xam ana fan la euh, li nga xam ne moom moo di wànn di mujj ak ay euh, gëtam soxna mm. naata donc mm. man j'insiste sur l'organisation ñu am ay élections yu transparente yoo xamante ni du am kenn koo xamante nii donc dina ci am loo xamante ni da ko ciy joxe baax incha allah merci beaucoup ci waat ci ñaareelu pàcc bi ak jàngatu tamit ak suñu gan euh, professeur Babacar Gueye ñu jàll léegi léegi ci un jour au Sénégal un jour dans le monde. Euh,